ñu lu jar dem tribunal buur wuru faa teg tànkam di sàkk lu mu fay wax bu boo xesee ànd ak sarti réew mi di def li waa réew mi laaj xuloo amu fa xeex amu fa yaay moom sa kër Tuubaa kër la kër la goo xam ne borom daa am titre foncier moom ay kayitam leneen li jamono Cheikh Moussa la jann lenn li jamono Sëñ Saaliwu la te ñu moom dëkk bi xam nañ loolu te ñuy kayit yi ma bëggan ñiy wax ñuy xam ni waxuñook nit ñu yeewu ay woroomi xel yoo ànd ak xam-xam te te yàgg fi ñoo fi ne te xam lu jaaru tu mën caa jaar suñ tubaab ba mu fi nekkee ba léegi fa mu tàmbalee woon ak ak ak tubaab yi xam nan ko ba ñu nee bisimilah yi da leen leetar ba mu leen njëkk a bind da leen ni yi maa ngi yéen bokkuñu lu ñuy def yéen addina képp ci ngeen ne lu mu yàgg-yàgg du ngeen ci daje ak man fenn du ma du ma wee ci addina du ma ci fekk du ma ci ànd ak kenn duma ma ci yónni kenn kon seen xel mën na cee dal man li ma ne nekku leen ci mbiri àllaaxira ci laa ne ak saa borom amu ci soxla xamu leen ko kon da ngeen a man waaye bu bu ngeen jàppee ci lii ma wax lu mu yàgg-yàgg dara du ko dindi bañ ca jàpput ngir fiire ko mbooloo mi bañ demee ba ca ba ca mujj ba bañuy bañuy def maslaa xam na ni li leen waxante tàmbali moom li mu leen mujj wax ñoo bokk léegi nag boobee nga xamee ni ci bi ñëw fii rabb li mu fi rabb dëkkal fi ñi mu fi dëkkal taawu ko ci bëtin wu ñu ko waat batale li mu fi batale ba mu agsi fii mu agsi danoon laaj ñu xam ni dëkk bi ci sarti réew mi lay dox waaye daa am borom te borom dafa ami bokk si mu taxaw mii fi nekk suñu Tuubaa dafa ami bokk bokk yooyu am bokk dong yi ñu koy ci seen biir kilifa yi diine yu naw fi kilifa yi diine yu mag ne nit niti biir yu kenn xamul ne fi ay kàngamit ne te ñooñu am na ñoo xam ne duñ diglu rajo am na ñoo xam ne duñ xool télé am na ñoo xam ne duñ jàngu journal am na ñoo xam ne lii xew ci réew mi. toog fi benn barab ñu informé la ko ba mu leer la nañ ñi kenn amatu jotam te ñoom waxtu wu leen neex la ñuy dox waxtu wu leen neex la ñuy yónni nit ma bëgg autorité bi ginnaaw man xam naa ni loolu mooy li am te ñaare bu ñu def bu ci njuumte amee xamuñu ko woon dong lay lay lay jur li may wax nii du du lu ñuy revendiquer waaye dafa dafa mat a xam ndax toujours nga gis loo xam ni dañuy dem ba ci yàgg ñun lii kat xamewuñ ko woon nii ma bëggan kon ñu xam ne dëkk bi naka jëkk suñu sali waxal na ni kenn du ko bay démancelé police bii bi mu fiy ñëw sëñ Saliou la neex waaye du jaay ni mbooloo moo laaj police état indi ko fi sëñ Saliou la neex moo santaane it ni dëkk bi laaj na ñu dimbali ma ci waaye nag bu ñu dikkee nañ ko wéer ci sart yi li ma leen di waxal li ma leen di wax ba ñu dëkkee sëñ bi moo leen wax fa mu bëgg ko fa def police ba wax leen sart ni mu ko ko fi nekkee loolu du kumpa Abdoulaye Abdoulaye Wade Macky Sall mi loolu du kumpa ndax boobu mooy ministère de l'intérieur xam na loolu euh, euh, gendarme yi bi ñu leen fi indi sëñ Ablaat moo leen fi indi ci coobareem moo lu ci ne dossier ba dossier suñu ba la mu ca bind moo ko ay rakkam ak du si suñu Saliou ba la ca bind mooy nañ fi nekk fekk mu may soob bu leen sooban tey du fi du fi fanaan loolu it dafa ma a xam loolu nii dafa mat a xam koo xam ne ab dëkkam la yor loo cay def ya da ñaan nga dimbali ko ca boo boo ko ca dimbalee ba mu ne fii doy naa yem dootoo sañ a jàll boo ko cay dimbali war a xam nag ni du caagee nag ni. bu ñu waxee rek ñu ne lu ndakaaru wéy ci lañ ma a yooyu déedéet ndax ndakaaru ña fay jaamu leneen lu dul yàlla yeneen ni diine nga fa te département département Mbacké bi képp mooy département boo xam ne mennum yàlla lañ fay jaamu di su fi ko fay jaamu leneen da nga koy nëbbu waaye doo ko wutal ab ab jaamu waay addina bépp benn dëkk bu ci toll ni Touba boo xam ne mennum yàlla lañ fay jaamu ilaahana waahidan wa laa nulloo muslimoona amut ci addina fu Touba mbaa république islamique yee koy am waaye amut ci ci li France colonisation loolu nag kon dafay laaj ñu di ko xam di maslaak nit ñi ndax ñoom li ñu ni moom lañ jàng bu dee dëgg ñoom sandarma yi li ñuy jàng bu dee dëgg ci ñoom war nañu jàng enquête nit boo ko ne sut wax ak moom mu tontu la war ngaa xam ba xam kii jar naa jàpp wala jërte jàpp waaw jigéen ñi xam ne dañuy matu te amaana buñ dee matu doo ko yëg dañuy def rek fëgg benn wata wata bi amaana am na këyit amaana amu ko amaana xam nañ ko amaana xamu ko waaw kooku bu bu yàlla dogalee muy muy def signal dansé ba yóbbu ko buy dëpp dajeeg ñu bokkut ak ñoom njëkk na dajal nan lay def wala dafay fanaan ndax loolu mat a xalaat koor gii di ñëw ak nit ñi nañ tàmmee doxu guddi ndax loolu mat a xalaat nit ñi seen fit yi dem na lool te ñun ñëpp bëgg bokk bëgg mu baax ginnaaw yàlla dogal na lépp lu mu ne moom la ñuy def si mun taxaa lépp lu mën ci digle ni nañ ànd ak ñoom ca loola ña koy def te si mun taxaa moo dox suñu diggante ak ñoom lépp lu ne état mën a yem fu si mu taxaa wax ne nañ fa yem fa la ñuy yem murid yi duñ révolté duñ sànni xeer duñ lànk moom it na séddu sëñ bi ci taalibe yi te xam ne sëñ bi taalibe yi la am amul leneen waaye fal googu daal ak ak ak àq dëkk bi ak ak ak ak ak ak ak ak ndax gis nit ko ànd ak soxna am dem nga wàcc góor gi ma dem nga téye so nga wàcc góor gi dem nga téye góor gi ak ak ak ak ak koy door a tàmm di déri déri diñ ci doon dégg loolu lu muy jur te li tax ma di ko wax nii man dalu ma dalul sa mbokk te ñaanu yàlla mu dal kenn ñu koy def di waxuma ne dañoo reew waaye damaa xam ne mën naa dem ba ñu laal koo xam ni dana waral si mun taxaane bu fi kenn fanaan nañ bàyyi lañ doon def te su boobaa du ko jarate te may wax nii biir dëkk bii am na murid yoo xam ne bu ñu ko déggee danañ xam ne tax may wax du ma ci nag tudd ay tur loolu daal ma moom laa ci doon wax suñu diggante dëkk bi euh, tool bii fi suñu tuwaa bàyyi nag mooy alxuraan ji li tax ma di ci wax moom dafay loo xam ne lu gudd la ci histoire waaye nag lu mat a jàpp na sëñ Saaliwu mii mas nañoo xëy ak suba mm, sëñ Seex Jaxate ne fa mu ne ko sëñ Seex Jaxate Seex sax la ko wax mu ne ko Mbàkke mu ne ko sëñ am sëtu lu mu waxati wan ni moo taxan sëñ Tuubaa samp dari kaamil ji mu ne ko dafa wax ni sëñ am sëtu nee na Tuubaa ba muy samp dari kaamil ji defe naa Jolof la wax xawma gànnaar waaye leen la ci wax waaye ba mu koy samp daal dana suñu borom da ko am na balaa bu réeréeréeréy buy waaj a wàcc ceeb bi ne ko loolu dama ko yelool jaam yi sëñ bi ni ko suñu borom ne ko loolu doyut mu ne ko daal bu fekkee mën nga julli gune nga gunge ko ab kaamil mën naa koy mën naa ko bàyyi waaye saa bu ñu ko bàyyee ma wàcce balaa bi suñ suñ tubaa nangul ko loola suñ ah, saaliwu daan daan ni bu ngeen demee nag loola tax ma bëgg sama daara yi ngeen fonk njàngum kaamil mi ngeen def bu ngeen jëlee takkusaan ba noppi daan ni suñu laat kat waxat ne fii ni sëñ tubaa ba mu sañ cee dëkk bi ak léegi juróom-ñaari jàkkaa nga fi waaye bis bu set ñu jàng kaamil suba ak bu ngoon ak ak ak suba bu ñaari suba ak bu tisbaar ak bu takkusaan daal di génn dal di ni balaa boobee nag moo tax ñu bëgg nit ñooñu di jàngee noonu yi suñ sariwul nag bi muy defaraat daara daara kaamil yi njaareem ji booba bàyyi Abdou Samad Sylla moom suñu dëmb Sylla moo jiite daara ja man miit la ko wooloo woon naa ko wooyee ba mu ñëw sëñ bi woo sëñ ma jaxate mi nga xam ni maam Mbàkke jaxatee bàyyam mu jox ko xaalis bu bari ak pep ak ceeb ni ko joxal la ko waa daari kaamil yi njëriñ daal di ni daal di nañ ma jox nañ ma bindal ña fa ne ñu bind ko indi mu mu am ci ñum dindi seen i tur mu am ci ñum dindi seen tur am ñeneen ñum bind seen i tur def ca daal di ni ab kaamil ñaar sax mën nañ koo jàng bu baree ba bari ñeent waaye suñu tubaab moo ci jublu ñaar fukki nit ak juróom-ñett dajaloo jàng ko léegi nag ñaar fukki juróom-ñett yooyu ku ne daa am fooy tàmbalee am fooy yem looloo lañ ca tàmm waaye bis bu set nga manqué bis bu set nga am Tuubaa toog fa bis bu set nga damay dem barab kaamil bi moom daa laaj ku koy def ku ne da ngay muñ say soxla sax ci waaw loolu ndax xel xalaat na ñu dem ba waxtu bii ñu naan daraa xew ba tax xel de xalaat naa kaamil boobu nañ seet nañ koy def wala dañ koy def ci whatsapp wala da koy def toog këram jàng ko man wax naa facture bi ci suñu saliwu wax loolu la wax dani suñ tubaab moo ci taamu ñaar fukki nit ak juróom-ñett da joloo jàng ko ba ko tubaab ya woo ne ko xaw ma lan résidence surveillée la ah. résidence surveillée waaw waxal ñi nga mënut a ñàkk àndal da di ñi jàng kaamil bi rek laay àndal Cheikh Moustapha Mbacké bi mu fi ne te te tawugut benn capital di tourner Sénégal fu ne mu dafa dem saa bu xëyee pick-up bi yóbbu jàngkat yi dañuy jiitu ba ne pénasam bi door ca topp fa mu fanaan ñu koy bokk fanaan fa mu fanaan ñu koy jàng ko waaw loolu ndax warees naa wéer rek ci ay science yi euh, lii la gouvernement bi wax wala lii la waa dina bi dox ba ba ndigalul Sëriñ ñu ñu di ko nuróo léeg ay jàkk yu ñuy tëjëg yu ñuy bi loolu de bëgg naa ñu bàyyi ko xel lool waaw dama ni sëñ Mamoune Bousso mii di jiite ci jumaa ji bi mu fi tàmbalee jiite yàggul kañ la bi suñu ab yu màggatee sëñ ab yu bi muy bi muy bi muy jiite lu ko waral sëñ Abdou Khadir fi newut sëñ ba muy jiite lu ko waral sëñ Fallou fi newut waaw léegi ñoom ñii fiy jiite dañoo yaakaar dañ fiy sax waaw suñ doon suñ doon yii fi ne ñu war a taxawu gone yi bañ yoraan alxuraan ja suñ tubaab bëggan ko ko yor bu ñu waxee ba ñu ba bàyyi ko waaw ñoom ñii bu ñu demee ba mënatuñoo dem ca jumaa ji wala ñu faatu ñun ñun ñii fi nekk suñuy doom war a wuutu ñooñee mu nekk benn silsila ca dem daa doxee ba léegi soo waawaa lu fi sës dañuy bàyyi jàng bàyyi jumaa ji wala dañuy dem wëri ku koy ku koy def waaw loolu ñun ñu bokk dëkk bi te toolu suñu tuwaay biir ñëpp ñu ciy ñu ciy bay ndax loolu mët a seet si li may wax ci suñu taxaw moom mii daa koy tàmbalee ak ñi mbokkal maam ñëpp kenn ku ci yor teraanga yi gouvernement am kenn ko ci xam ne fa nga toog gouvernement tax nga toog fa am teraanga yi Sëñ Tuubaa la ñor moo leen ma ko ci càllale gi booy boo booy gën a addina lañ tàmbalee wax sëñ bi wala ñu naan si boo amee juróom-ñaar tàmbalee amul turandoo waaw teraanga yi Sëñ Tuubaa jooju ndax ñun ñëpp waruñoo taxaw ci lépp luy tax mu ñàkkat dox ñu def ko muy lan moo tax ma di ko wax tey rajo bi moo wax ni euh, préfet Dagana tëj na daara ja juróom benn jàngalekat xam naa leen fii ci ci quartier Madiyana yoo xam ne ñenn ñi Louga lañ jógee ñenn ñi Dakar ñu tëj nañ waaw ndax nun war nañ rek Touba ci Sénégal la bokk ba lu ñu lu ñu def Ndakaaru def ko kees bu ñu def ko dama ne Lamine bu wax dëgg wax sëñ Touba li mu gantu ba tax koo dem ci géej beneen sëriñ bu ko gantoon ñu ñu wëroon yóbbu duñ li mu nangul boromam beneen sëriñ bu sa borom jaralan bu ñuy dem duñ la fi ba ba ñu ñu suñ Touba ci deret ba tax ñu dencal ko mbañal ba fa ko yóbbu dafa nangul yàlla lu ko kenn nangulut teg yàlla fu ko kenn tegut moo tax ñu ne ko cas mel na moom yóbbu waaw ndax dañuy dem ba léegi ñu fab suñu tubaab mooma nuróoli ko ñaa xam ni dañoo noonu rek nu nu tubaab bi def baax na diine ji naka jekk diine lislaam naka jekk ba mu fi nekkee ba bisub tey bii yàlla da daa ber ki yor addina bi ber ki yor ah, diine ji sëñ Saaliwu nag moo nu boole woon wax nun ñii nu bokk dégg suñ tubaab nee na yéex na moon a saayir mi na xayaati dunya li muy firi mooy tubaab yi adduna lu fi am njariñ lu ci yàlla def njariñ ba ci benn xob xam nañ ko luñ ca xamut tey seen xam-xama ci àggul waaye dañ ca fa tubaab loo xool ba mu ko xamal ni baaxul njariñ amul niw ci daal ni waaye nag ak wilaaya ak ak baatin lu ñu ca xam lu mu tuuti tuuti ka ko yor baaxul waaw léegi Senghor ba mu fii ne daa bëri woon yor ñu dénk ko addina bi duñ ko laaj suñu diine du du ci duñu ci jox xalaat bi mu defee code de la famille ak ak ak lu ñu koy waxee planning familial bési bi ci suñu sax mbàkk bindoon ba léegi mi ngi noonu doomi suñu tool yëpp dañoo seeni lii mooy mooy walaabal bési boobu moo tax ba fii ma toog loolu loolu jàllut te ba ba mu daa ba ko suñu seex laataa bind suñu seex wax na ca tërjumaan ke ni kilifa yi diine yi nekk ci réew mi nangul nañ ko li wax ànd naa ci waaye nag nun loolu duñ fi bàyyiwu nun règlement d'intérieur bi xattul histoire yi ci la ñuy taxaw daal ni alhamdulilah li si ansala ala abdul wala nu illa wajan qayiman waaw nun mënunoo ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne mën na noo may wér te diine ji ñu génn ci lu ñu ciy soppi ñu ba ko ci xalaati sëñ bi ñaan yi ñuy ñaan ak jàng yi ñuy jàng alxuraan dañoo xam ni moo ji moo docteur yi li ñuy def bu ci bu ci barke doon màccit loolaa koy ubbi Saliou Ndiaye Touba mii moo doon jëwriñ Saliou njàppandal yor na la kan ab diir yor na ko ñaaru wéree dina Euh, dem ndakaaru faju ba wér ni sëñ bi ne man xam naa ni docteur yi sax nee nañ ma wér naa waaye jàpp naa ni rek sa ñaan gaa tax sëñ ne ko loolooy ñaar yoon ñaan ñaan day ubbi buntu clé clé faj xam-xam fi may jaar ba nga wér day ubbi buntu lu mu la jox donte benn spirit la nga wér waaye ñaan yooyu ñu wàcc ko docteur yi fi ne li ñu bëgg lépp yàlla mën na ko daa dogal léegi ci lu mat ci lu wér semaine su boobaa ñu defee docteur yaa waaye amaana ñaan yaa ñaan ci wetu bëri lay dox docteur dox ci wetu sayir ñi ma bokkal kër Serigne Saliou xam na ñaata ruug la fi Serigne Saliou jot ca ku daanu ci guy ak côté fiir te teewu dañ lay waa ana ñaan nga waaw ndax loolu mu ta bàyyi xel waaw dama ne man ci ak jiwri ñi ma maasee ko koora 96 lañ sëñ bi waxee ndax dañ koo fàtte lañ sëñ bi ndax dañ koo fàtte man lagan booba maa may borom dañoo mujjoon wut mel na daanaa fanaanoo fan wéeri nit ñu ko laa oto bi da baagante du yóbboo ko ñëw maa ngi nii ko la rawuma dañoo fàtte ni sëñ bi la mu waxoon fàttewuñ ko waaw daari jooju ci njariñ ñu peste amal na ca dégg naa fii sax ku ko wax naa banaa mooy mooy ndey si Moussa Xasida ci audio yi waaye damaa jàpp ne daa jum Moussa Xasida Mor Alima jur ndeyam Moussa jur ko te Mor moomee moom la dalal te nettali na ko ma dégg ko man teggi du ma teggi waxe buur waaye suñ diine ji bu ma sañoon ñu fàttali ko ko te kilifa gën a ñu wax ceeg moom li ci des mooy alquran jii ak xasida yii li ci suñu tubaab wax xanaa dañ ko fàtte li xaaril quran yi xifsul baax yi wa ismatul baax yi man itlaq ñuy jàng alquran yàllaa leen di wattu moo leen di musal te di leen di boyal waaw dama ne ana ki suñu tubaab waxaat ne mutsam mi suñu tubaab waxaat ne yow bala yàlla sàkk xasida ki nga xam ne ba ko yàlla sàkk xasida tax suñu ba mu ñëw mu day bàyyi jàng xasida nañ bàyyi bu ñu waxee ñu naan lii yëg-yëg la man xaqiqa ak sariha ñaari yii man laa ki doon bu ma ci neex lay jiite suñ salo mbàkke la soog mu def loo ma du ma wax luy tàllum réew du ma wax luy luy luy yàqu tàll wi du ma wax luy yàqum réew waaye alxuraan ji ginnaaw dégg naa ne ñu ngi ciy tëj ay daara man danaa ci wax man uma daara de uma daara ju am indépendance daara ji nga fekk ci ci atteb suñ sooy bu la yi nu nu suñ seex say def daara jee dara nag mu def ni daara ji sama yeneen daara yi ci atteb suñ sooy bu la yi lu jannatul ma waa gii suñ seex def ay donga ak daaru tansil gee ak ak daaru daaru nahim ak ngaabu ak njurul samaar yi danañ ci mën a wéy benn club te bu ñoroon Touba gii suñ si di am njël wala suñ seex say wala suñ seex bu talibu mën danaa am waaye nag lii ñun ñëpp ko bokk ginnaaw man naa gi dégg ñaa dañuy tëji daara wala leneen danaa ci teel a wax wax naa ci lu amal njëriñ ñëpp maa ngi ñaan képp ku ko jariñoo ba mu ci dugal menn pexe maa ko wax ci sama coobare kenn wax la ko lënkaloo ma ci benn site lënkaloo ma ci benn journaliste